dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi di réew mi quotidien mu xëy di ñu xamal lan ñu am na loo xam ne nag jàngoroy coronavirus rek moo ko man ginnaaw bi mu lëmbaajee àdduna bi ñu bëri nag am si njàqare ak tiis coronavirus daat nay dajale Macky Sall ak ñi nga xam ne maanaam ñoo nekk ci kujje gi journal bi mu ñu xamal lan ñu ginnaaw nag bi ñu taxawalee ab état d'urgence couvre-feu yéenekaay gi mu ñu xamal lan ñu nag démb daal askanu Sénégal daal dinañuy gis nag Macky Sall ak Idrissa Seck Macky Sall ak Ousmane Sonko Macky Sall ak Malick Gakou Macky Sall ak Khalifa sal maki sal ak Pape Diop maki sal ak Issa sal Macky sal ak Aïda Mbodj yéen a kaay gi di réew mi quotidien mu ñu xamal nañu am na nag loo xamante ni ku ko waxoon askanu Sénégal du ñu ko daa di gëma wala sa xel da ko nanguwuta yéen a kaay groupe Promo bi mu ñu xamal nañu ana kan moo nekkoon ci réew mi di njortu Idrissa Seck toog ak maki Sall wala Ousmane Sonko toog ak maki Sall ñi nga xamante ni daal ñoo nekk ci kujje gi di taral xeex bi lool lool lool ku si askanu Sénégal gis nañu ko mu daal di toog ak Macky Sall kenn ku nekk di ree di jox sa morom loolee lépp nag journal bii di ko di Quotidien ci xalima ak Assane Samb nee na jàngoro coronavirus moo fa daal di jaara Idrissa sa ni ki démb nag ba mu génnee ca audience ba moom ak Macky Sall la mu xamle nee na jamono ji nag sénégalais yëpp yëpp yëpp ñoo war a joxante loxo ngir na xeex jàngoroy coronavirus yéen kaay gi ba tey mu ñu xamal ñu Malick Gakou nag moom def ne jamono ji daal Sénégal ci boppam mooy ku nekk war commencé jàpp ngir intérêt national Khalifa Ababacar Sall la mu xamle nee na ñun ñépp ñoo nekk ci danger ñoo nekk ci giiraawaal yi moom Khalifa Ababacar Sall ne jamono ji nag man dogal yi Macky Sall jël yépp ànd naa ci Ousmane Sonko la mu xamle ne ne jamono ji jamono ju garaaw a garaaw la waaye nag moom Ousmane Sonko yemul foofu daan nay wax na nag lu jëm ci wàllum mesures yi Macky Sall jël ci wàllum fiscal yi loole nag moom àndu ci dafay sàkku nag mbir yépp daal daa di jaar ci maanaam daa di leer nee na loolee wax na ko Macky a kaay gi di source am mu ñu xamal na ñu Serigne Modou Kara ni ki démb nag moom mën nañoo wax ne mooy yàq xewa la tax mu yàq xewa journal bi di réew mi ko di jee nee na ñëpp bi ñu ñëwee daal maanaam ñu Macky Sall dañu ko dànd di joxante nag ay mbagg ak waaye Kara moom bi mu ñëwee maanaam loxo yàlla na jàmbax ca mbir ma yéen kaay gi mu ñu xamal na ñu loole nag na yàq na communication bari boo xamante ni Macky Sall doon na ko def ca wa woowu moom Serigne Modou Kara nag journalu groupe Promo Consulting bi nee na dafa violé li nga xamante ni maanaam mooy règle yi yéen kaay gi de la mooy mu ñu xamal nañu neexul ba neexul na nag coronavirus daat nay am doole mbogo mbogo na gurgur na ñi nga xam ne ñooy ku jégi yóbbul ko Macky Sall yéen kaay gi di Sud Quotidien mu ñu xamal nañu coronavirus daat nay tax na ak déggoo daa di am diggante Macky Sall ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci ku jégi ngir ñëpp joxante la ko xeex gile wopp Serigne Modou Kara journal bi nee na démb moo yàq xew Ousmane Sonko nee na nag jamono ji ñoo ngi ci guerre lool man ka xamle ci journal bi di Sud Quotidien moo ci xëy dellu mu ñuy xamal naan ñu ni ki tey ji nag Macky Sall dina daal di recevoir ñi nga xam ne ay ancien premier ministre la ku si mel ni Abdoul Mbaye Hadjibou Soumaré Souleymane Ndéné Ndiaye Mamadou Lamine Louma yéen a kaay gii la turbine muy xëy di ñu xamal naan ñu Covid daat nay dajale sénégalais yépp ba ci biir yéen a kaay gii di mu ñu xamal naan ñu dem nag policiers yi ñoom ci couvre-feu bi maanaam wane nañu seen bopp Vox Populi mu ñu xamal naan malaka wax a dëgëroon bopp lànk nag bañ a fatu ci kër yi Aly Ngouille Ndiaye ne képp koo xamante ni jalgati nga ko maanaam ñaari weeri kaso jàpp ñaari ati kaso man la see daal di fekk yéen a kaay gii de la mu ñu xamal lan ñu moo ne day démb bi vingt heures jotee askan wi maanaam mbeddi ndakaaru yi nee na wëya nga journalu groupe Promo Consulting bi mu ñu xamal lan ñu moom ak source a nee na nag ba tey jamonoy jii maanaam coronavirus bi bàyyeegul Sénégal ndax démb am na juróom-ñaari nit ñoo xamante ni daal di nañu koy amee observateur daal di ñëw nag ci mille milliards yi ak nan la ko Macky Sall di lijjantee Macky Sall nee na nag juróomi milliards dina ko jël dolli ko nag ci gafaka ak ministre bi ñu dénk wàllum wér-gi-yaram gi journal bi di source a mu ñu xamal lan ñu ca diwaanu Touba nag foofee maanaam ay ngénte ak nag ay céet maanaam police moo ko daal tas ñu bari ñu daal leen fay teg loxo yéen a ka ay gidda la témoin mu ñu xamal lan ñu xalif général des mourides moom nag daal nay ci taalibe kenn ku nekk toog sa kër daal di fay jullee journal bii di réew mi quotidien mu ñu xamal lan ñu moodu moodu bi nga xamante ni moo amee woon jàngoroy coronavirus ji te wàllu ko ñu bari ca Touba moom daal daan koy jox lu toll ci deux cent mille ak benn tonne ceeb libération yéen a mu ñu xamalaan ñu am na ñetti sénégalais yoo xam ne amee nañu jàngoroy coronavirus ci Italie yéen a kaay gii di ñu fekk fa Diao Baldé Keita moom nag ci lu jëm ci wàllum xeex jàngoroy coronavirus ji moom tim desu si benn yoon daan nay génne lu toll ci fukk ak benn ci ay millions ngir nag ñëpp joxante loxo xeex covid 19